ñiy liggéey ci wàllum yoon dakkaluñu benn yoon seen grève bi ñu tàmbali woon na ngeen le 13 mars ba tey grève bi li ko waraloon bokk ci le revalorisation des primes de participation à la judicature wéyal seen payooru di dikk prime à la juróomi fan ci weer wu nekk tey li waral boobee grève bokk na ci ñu dugal lootaay gi ëmb ñuy liggéey ci wàllum yoon mu intégré comité de gestion des fonds communs bu grève mu mel ni grève bi gënul benn yoon ci askan wi. mi ngi avancé nag mais euh, grève bi damay ñëw à chaque fois ñun ma dañuy grève quoi. ça fait un mois maa ngi fi baagante benn euh, changement de nom mais boobu ba léegi mënu ma mënu ma si am mënu si am benn avancement quoi avancement bi kiiwul quoi baaxul quoi ni muy avancé baaxul da ngay ñëw ñu la administration bi dafa dañoo grève. askan wi ñoo ngi sàkk grève gi jeex ndax metti na lool ci ñoom. bon di ñaan yàlla nag grève bi jeex feeg suba parce que c'est dur ah sonn nañ de kale na suñu liggéey. mënuñu liggéey mënuñu dem fenn. ñu jàpp nii dañu leen bëgg teg ay daan. ndax ñi nekk ci mbootaay ji lànk ne duñ defar benn yoon. liste bi nga xam ni jëwrin bi ñu dénk wàllum yoon moo koy laaj. li ñu yëg daal mais benn pa bataaxal bi nga xam ne ma nga bàyyi ko ci sunub jëwriñ di sàkku ci président cour tribunaux yi ñoom kat ñu daal di amal ab dossier ad waaye tamit di waajal ay daan. ndax it benn weer ngi nii ñun liggéeykat yi ci wàllum justice ñoom ña nga ci grève te garde des moom mi nga xam ne moo nu waroon woo ci wërngalu table wi ñu waxtaan moom ci boppam dafa mel ni dañuy xoxotal ak du nu mën a du ñu sukkandikoo ci ñu bokk ci mbootaay gi ëmb wàllum yoon ñoo ngi sàkku benn waxtaan ci jëwrin ji ñu dénk wàllum yoon ñu mën a trouver ay solution ba tey bu ñu sukkandikoo ci mbootaay gi ëmb wàllum yoon ñoo ngi xam xamle ni crise 2019 2020 ak crise bu tay bi dara waralu ko lu dul ñàkkum xarañte bu jëwrin ju ñu dénk wàllum yoon di la Madior Fall